wagaayatu suuli xaysuma kuntu urbu assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barkatuhu bandiraɓe julɓe musidɓe tedduɓe wonɓe dendagal dune baba adama to gonɗon ene gonirɗon amin mbiya on assalamu aleykum wa taala wa barkatuhu en garte ñalawmaji men baɗoji ɗo e nder galle ceerno men ceerno hamidou atumane dembocar ɓuur lollirde ceerno men ceerno yaro e nder zaawi e seeko ɓurol fuuti e diwan mum kala ɗum noon bandiraɓe julɓe to gonɗon ene gonirɗon amin mbiya on yo on gandu ñande nogas e nayyi e lewru men nduɗo novembre ndu gonɗen e ñande nogas e joyyi e ñande nogas e jeegom ɗum woni ɗiɗo ñalawmaji teddude baɗoji hitande 2023 ɗum noon bandiraɓe julɓe eɗen ciftinora julɓe yo gandu ñande nogas dayne woni ñande mum ko aljuma ko ñalawma ko wiyete ko zicru janngude alqur'ani karim e dowuji kala eɗen nganndi koye on ñalawma jaɓɓoɗen oɗo gorko tedduɗo biyeteɗo seyid cheikh mouhamadoul bachir montoga ɗa ha cheikh oumarol fouti radiallahu taala anhu mo ngannduɗa duwaw munne allahuma munne yaade amina ɗum noon bandiraɓe julɓe ngannden ñalawma samedi o si en pini ko noon tigi golle ɗe ɗe jokka ɗe jarata ha notoyɗen ngal ɗo dingiral en jooɗima toon eɗen gandi eɗen jogori huccodirde ngoɗo yesso malago seyir cheikh mouhamadoul basir montagaɗa ha eko jogori haalede hen wotomo luuti hay goto eɗen gandi ñalawma dimanche o ñande nogas e jeegom kañum tigui woni consultation ganduɗa ko garativi ma ƴeewe ɓandu ma holɗo yarata ko woodi ko dokkeɗa ko heddi ko kala no foti yarude balleɗa hen ko doctereɓe forɓe waɓɓe fayide gardi e golle ɗum noon bandiraɓe to gonɗon ene gonirɗon bisimilla moon e hitaande eɗen mbiya kadi yen mbattuni kadi mo wuuri assalamu aleykum wa rahmatullahi taala ku gis jataay bi rek xam ne la daan xew dikkati na si baaxu yàlla ci kàntanam muy ay bés yoo xamante ne yu safina saadaati di faral di amal ci ndigalu a cheikh Thierno Bachir Tall yal na ko fi yàlla yàggal ah kilifa diine yëpp nag bàyyi ñu kenn ci ndigal Thierno Hamidou ban mi nga xamante ne moom mooy responsable moral di imam ratib Scat Urbam euh, ñu ngi leen di yëgalati seeni bés le 24 bésu zikkar la bésu ñaan la bésu xadara la le cinq muy cérémonie officielle bi nga xamante ne ànd ndax waxtaan woo xamante ne ku wax développement rek da ngay wax jàmm ndax jàmm bu amul doo man développé wu comme du am dara du am kon ci thème boobu incha allahu rabbi bésu cérémonie officielle bi ci lañ ko feskee ne waxtaane incha allahu rabbi bésu le 26 bi muy saytu yaram yi nga xamante ne visite médicale yi doon am moom la ñuy amal nga xamante ne kenn du fay dara ku ñëw ñu seetla la orienté la lu fi am ci garab ñu jàppale la ci ñetti fan yooyu ci la ñuy oowaat mbokk yëpp nañu ko daan defe mu rafet ñu teeru gan yi teral leen gunge leen ba ñu delluwaat ax jàmm ñu ngi ñaan képp ku am yéene egsi yàlla nga egsi ax jàmm fekk fi jàmm fa ngay demit nga bàyyi fa jàmm insha allahu rabbi mbokka cing saavici ɓo dokkisi ndi na ɓe kisseɗum be sef ina ngane wetna haɓɗuse ndi kisnunik kahan ceerno amidou yero ban hamne a ɓo woken wan kilifaningoya ke ani ka ceerno bachiru muntaha daha dal ko faraɗɗe nga po a lool lol hassingo besi nak woni que le 24 caɓni ɓoni kohwi no le 25 no le 26 novembre ɓoni kohwi 24 waneni ke bes a jomowa jankamel we ene raking ɗi kena ay ñanna wasifa cahi haɓɗuse nga le 25 kane we cérémonie officiel finakane adina jen mbole mboɗum finakane kilifa sénégal da fo hay tewe nga mbaɗi wayrake wahtan diine wayrake ƴeek wayrake e nunik no ha mbaɗi le 26 a ɓo kurok mbaɗina mbaɓtelaɗa waneni ke paƴuk paƴ kif ina ngane ɓo nuf ina ngane fanigɗa wa jekɗi fo hayga besa mbaɗin dimanche aɗe le 26 ɓa hayɗa markiɗe fanigɗa ɓa eɗɗa kidi kif ina ngane ceeɗ warga mbo kacin savici ine mbo hn se sin noon laahaar dutta saafi saafi ɓa jenɓoɓe ɓeeɗu ɓan besif ina ngani ceerno amidou yere ban ayɓe ko han escape irban ndi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñun ñi dëkkee Scat Urbam cité kër ak Grand Yoff muy woote bu rëy bi nga xamante ni daayira safinatu saada ñoo koy amal ci seen ndigalal kilifa muy imam ratib ceerno xamidu yoro baan ci ndigalu kilifaam Cerno Cheikh Bachir Taal di xalifa Cheikh Alxaaji Omar Fuutiyu Taal mu mel ni fa tabarakallahu programme boobu moo dellu si ci mbaaxu yàlla ak kattanam ñu war ko amal ci weeru novembre bii ñu nekk tolloog ajjuma le 24 novembre samedi le 25 ak dimanche le 26 incha allahu ñu war ci amal xadaratu jumaa mu tombeeg le 24 bi di ajjuma ca tàkkusaan ñu ciy woo képp ka nga xamante ni jullit nga waaye képp ka nga xamante ni njaboot nga ci Maulana Cheikh Seydi Ahmed Tijani muy liggéey bu rëy bi nga xamante ni war nañ ko fi amal te ku gis programme bi ak nu mu toll xam ni taxawaay bi ci ndaw ñi war a am taxawaay bu ama am solo la buñ ca jógee cérémonie officielle bi di le vingt cinq di samedi bi lu ko dalee tàkkusaan ba ba muy jeex incha allahu ñu koy tàmbalee wadifa loolu itam ñu ci woo ndaw yi nga xamante ni ñi ngi ci gox bi ndaw yi nga xamante ni ñi ngi ci région Cap Vert ak ndaw bu nga xamante ni message bi di nga ci jot incha allahu nga def ci yitte beneen bi itam fi ñu koy daaneelee muy bisub le 26 muy dimanche bi mu tombeek bisu consultation médical gratuite bi nga xamante ni dinañ ko amal fii ci daara ji ñu ciy ñaan taxawaayu ndaw yi itam ngir ñu mën a dimbali organisation bi ba lépp ñoŋ kon tabaarakallahu message bi ci nopp ndaw bu mu toq rek xamal ni sa chance la ngir nga ñëw barkeelu ci bés yu rëy yooyu nga xamante ni ñu ngi ñaan yàlla subhaanahu wa mu yeggale ñu ci jàmm ak salaam ñu dugg ci ci bismillahi arrahmani arrahim yëggale ko ak alhamdulillahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wa in xiftu riddatan jaaltum tidaaha alxubbi tursan wa buddatan